élection législative yi nu jëm nga xam ne nag kàddu yi Barthélémy Dias yëkkati woon ñaaw na lu gannaaw ba muy jàkkaarloo ko jeunesse bi ñenn si patriote yi nga xam ne nag dañ ko doon yuuxu naan Sonko Sonko ba tax nag mu génn woon fa ay kàddu yu doy waar jàmmaarloo bu ni mel nag la Jean Baptiste dina dafa mel ne di ragal ba tax nag mu génn ab arrêté bu am solo du ñàkk di leen si ñëw gën koo yaatal moom Barth moom sax nag na ngay si kaw ki nga xam ne nag moo di Ousmane Sonko gannaaw bañ ko posé question nekk Ousmane Sonko wala du la mu ne nag moom Ousmane Sonko moom moo ko teree nelaw yàgg-yàgg moom dina suul kii di Ousmane Sonko wala Ousmane Sonko suul ko si politique ñu ko Ousmane Sonko waxe woon gatsa gatsa moom ne du ko woo si gatsa gatsa waaye si politique moom moom Barthélemy Dias ma ngay xamle que ne daal du may dara ki nga xam ne nag moo di Ousmane Sonko mu nekk nakat yoo xam ne ma ko xam ne démb si émission bi nga xam ne nag doon na ko amal du ñàkk dinañ si ñëw gën ko yaatal ñu bàyyi leen nag ak euh, réaction yi nga xam ne amal nañ ko si arrêté bi nga xam ne Jean Baptiste Tine daat na koy def jëmale ko si wàllum arme bi nga xam ne nag moom Barthélemy Dias Wow, nañ ko ko bu baax. waaw quand tu compares Barthélémy Diaz avec euh, ak Ousmane Sonko et tout ce qui s'est passé. David ñun ñëpp pas une autorisation de port d'armes mais <coughs> responsabilité moo tax ñu jox et cela n'exclut pas le fait d'avoir une autorisation de port d'armes ne te permet pas de tirer ci kaw foule en public alors que tu ne maîtrises pas bu xamee moom xam parce que dina def ay cours ay séances de tir imaginez imagine que yi ñu tirer il n'avait pas tiré pour am ben objectif ne sama cible sama bal yem te jubluwuma ci ray en tout cas mënu ko wala qu'on me dise kan même les plus grands tireurs de lutte comme on dit, il di tirer ci kaw ay tirer. ñu lay jox sa fetel di tirer paré nak wax kaddu gu ñaw bo leen bu amé Il dem mako ay est un criminel nit la koku buñ ko Il comme li xewoon ci mairie dina def pire que li Macky Sall de toute façon il a avoué dans ses derniers lives c'est un produit du système système bu mu andon ak ñun diko xex xeex te papam nek ci biir système bobu mu ngi koy défendre fim nek ni de toute façon man pour man c'est pas un man duma jiital le midjaz benen bi moy yo sa bop avoué nga né Macky Sall lu muy xawma terme bi nga utiliser bon bon bon xaaral ci benen audio Yo sa bopp dans ton argumentaire da ngaa accepter ne Macky Sall lu muy bon bon bon nga wax je pense mais Macky Sall amoon na ay moment avant ñuy découvrir ci mom lolu ñun dañ ko jappalé am ci mom yaakar. te pourtant xëy na da nga da nga rek mais mom forcément, na voté na sans carte d'identité Forcément, na ay policiers ba la wax mais malgré tout ça on s'était dit voilà xam nga on s'est rendu compte que ni voilà donc dire que Bougane Dembu ak Bougane Tay comparé comparé lolo, euh, je trouve juste que ni c'est ton droit de le défendre comme moi d'ailleurs je l'ai toujours défendu et je t'avoue même que ni au sein de F24 nous naa ne sax Bougane moo gën a def dépense am di jox këram di et Dieu sait que yow xam nga j'ai tout fait pour que mu la coalition B. c'était peut-être que ñu nangu ko ñu bañ ko c'était peut-être pour sa protection en tout cas aujourd'hui si j'étais quelqu'un qui est avec lui je ne lui conseillerais pas c'est de def parce que Mouni, tu gagnes dara y a une différence entre avoir de la popularité que les gens parlent de toi et gagner sur le terrain dans les urnes Il y a une très grande différence ñaar tu ci soit tu gagné pour de bon salut, ou soit tu te fais passer pour quelqu'un de très très mauvais que Bougane est en train de prendre ce chemin-là yow a fait le tour du Sénégal comme d'ailleurs beaucoup de gens ont fait le tour du Sénégal je peux te citer euh, même des actes def Gabriel Cam, par exemple man mais def actes est-ce que cela veut dire que nous, nous mom dafa à nous aspirer nous wala dafa des di avec les les textes de nos lois. Donc, pour conclure, moi j'ai pas dit seulement que les Bougan, il est fragile. Là-dessus, je te rejoins. Mais j'ai réuni des faits pour me dire que ko terrain il a traversé beaucoup beaucoup beaucoup de choses cette année là aucun homme voilà aucune femme résiste à loolu qui même la vie perd sa jabar qui même la vie, def divorce même si je sais que ni amna na pas bu mu mais lolu nañ def compte que ni euh, voilà c'est un père de famille Amna ñeneen qui ko même su voilà c'est pour ça que je te rejoins pour wax la dans les grandes démocraties lii mu def nii ñu gis ne jaaduwul te man tax jaaduwul kenn mënul fexe ba mu jaadu du du du du meurtre du vol du leneen loo xamante ni war nañ ko mën a tëj ci kaso bi même bu fekkee dañ koy amande nañ ko amande ñu bàyyi ko mu génn mu politique parce que man xam naa ñi mu àndal déjà su ma gisee image yi bu muy fourchette yooyu dama fay gis mortal gis fa ñeneen ñu bëri ñoo xam ne xam naa leen ñu jox mu cër lool ne serait-ce que pour ces gens-là qui sont des Sénégalais qui ont des droits et que ñoom seen gëm-gëm la ñuy défendre yaakaar si Bougane war nañ ko mën a bàyyi mu libre parce que pour man nañ ko rappeler à l'ordre li mu def jaaduwul ñu woon ko teg ko ay amende bàyyi ko mu génn mu dem mu politique beneen yoon du ko def j'espère su fekkente ne tey Bougane et conscient nit la yow bu ñëwee sax yow delphine di ko ne li nga def waroo ko woon def bu ko defati té mom ci bopam dootu ko def parce que fi mu lolu c'est pas Thierno beaucoup mo tëdd fofu c'est pas Pape Djibril Fall c'est pas ñi mu ànd ak kenn tëddul foofu prison bi à sa place avec tout ce qui si tuberculose ak yépp yu fa wara am donc may jumelles, je terminerai juste pour wax ni j'ai un grand respect pour tous les Sénégalais j'ai un grand respect pour Bougan. Yo xam nga man même le mais j'ai un respect pour tous les Sénégalais Moi, ne crains pas ce respect par rapport à Bougan. mais après les élections là dinañ tok ñu waxtaan suñu biir en tant que mais là nous sommes sur un terrain politique et tout se paye cash à partir du moment où da nga wax ne da ngay jiite sénégalais té te politique en plus nga nek di poser ay actes yo xamante c'est des provocations non attends le retour attends tes réponses et ces réponses là ça peut être aussi sur le terrain politique bu avec des politiciens mais ça peut être avec des forces de l'ordre comme euh, les MOUDAF def forces de l'ordre et justice di ko répondre Mais on répondre de la même manière s'il attaque un parti ou un leader de parti sur le terrain politique maintenant je vais ma pas moi, dire aujourd'hui je défends Pasteur. Talk ak ay secret talk ak ay lu bëri lu xam ci dans la vie normale on se le garde pour nous mais les gens ramènent des choses comme ça sur les terrains politiques pour abattre des adversaires, moi je riposterai. La preuve, la preuve, danga ma tontu yow un ma tontu te xam naa ne beneen yoon su may wax dinaa la sóoraale parce que du que bëgg nga mer du ma bëgg lu la metti de may def mais moi aussi il faut ngeen wax ko la politique il a le droit nous dañu soxla opposition dañu soxla kuy nekk mais un opposant responsable et Bougane peut être responsable s'il fait ça il n'aura pas en tout cas réponse au parce que demain on va sax calculer Les politiques ont droit droit me calculer mais même demain si Bougane génne de fait, actuellement, je sortirai encore et j'irai plus loin que aujourd'hui malheureusement de lu j'aurais voulu que Bougan politique normalement correctement ne saga, pas, agressé, agressé politique normalement ñu dem mais nous avons une lu réponse question et tu le sais aujourd'hui moi j'aurais aimé Amadou Ba wacc Macky Sall wacc ñeneen wacc am euh, géopolitique pour li ñu def Sénégalais yi te bugaan ñun ñuy contre ñooñu mais lan la def donc juste rek pour wax la euh, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont passées sur la politique Sénégal mais rassure-toi que ne kenn ne nekk am droit politique sincèrement Bougan, avec li du Sénégal avec li def opposition nous ce serait très dommage mu nous yoon bii duma ne nag dafa waroon obligatoirement ak Pastef hein. il a le droit que xëy na sax yàlla mënoon na def tey moom Bougane moo yor position Ousmane Sonko yàlla mooy maye loolu mais quand même chemin bu muy jël nii du cëram te man maa la koy waatal fii si Bougane a des conseils mun naa waat mais su fekkee am na ñu koy conseil maîtriser na terrain bi am na mbooloo xam na nu muy def am na moyen de communication na changer stratégie na changer de d'épaule sinon les réponses qu'il aura là

tout le monde peut être en prison mais yàlla na yàlla def ni nga fay demee mu nekk loo xamante ni ndogal la wala yalla mussel ñu ci ñun ñep jombul kenn te kenn yéenewul kenn dem prison mais su fekkee nit mu ngi poser acte bëgg dem prison coûte que coûte parce que yow juriste nga xam nga ku dëkk en permanence di défier institution di wax loo xamante ni xam nga c'est pour aller en prison même bu forcé devant des forces de l'ordre arrêtez taxaw moi à sa place je ai dit vous n'avez pas le droit de m'arrêter mais je le respecte quand même donc on nous montre où c'est que Ousmane Sonko a eu des altercations avec des forces de l'ordre même si nous attaqué ci pour top vie tok les bras sommes forcé do jaar fi fi ngay jaar day toog ci otom fay otom taxaw et même pour les comparaître Ousmane Sonko jugement bi nga koy wax je pense que en tant que juriste des viols avec des avocats yuy fuitaloo ay audio ne ñu ko ci condam Dior Diagne je cite son nom mais nañ ko traîner sénégalais accepté lolu am ñu dem ba viol ñu qualifier ko délit délit délit xawma